bismillaahi rahmaani rahiim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa ñu dellu siwaat ci seen émission bi ñu tuddee madinatu ilmi ñu di ko amale fii ci 24 actu tey ñu fas yéene ànd ak yéen ci benn tomb boo xamante ni bu itteel la boo xamante ni bëgg na ñu xam ko xam nañ ne eh, mbokk yi eh, yàlla ku màgg la yàlla ko màgg la ñu bëgg a dikk ci màggaayu yàlla ak takbiir bi nga xam ne war nañ koy def ci sunu borom te mu santaane ko xam ngeen ne bu ne allahu akbar allahu akbar mooy yàlla màgg na am na ñu koy firee noonu am na ñuy wax ne yàlla moo gën a màgg lépp moo gën a màgg lépp takbiir yooyu li tax ñu ko sunu borom dinu ko defloo mooy dafa bëgg ñu fees ci xolom dafa bëgg ñuy tudd yàlla lu bare bare alazina yaskuruuna allaha qiyaaman wa uqoodan wa ala junnubihim wa yatafakkaruuna wa xalqu samaawaati wala rabbana ma xalaqta asa baatilan subhaanaka fa xaqina asaaba naar suñ borom dafa bëgg boo toogee nga koy tudd boo tëddee nga koy tudd ngay tudd aw turam rawatina ngay tudd takbiir di tudd allahu akbar allahu akbar loolu day wane ne yàlla moo fees ci sa xol ndax nit ki feek du tudd yàlla rek yàlla du jeexital ci xolam boo gisee yonent bi salaa salaam lim doon wooteeloo tawxiid mooy la ilaha illallah te ku nekk xam na ne allahu akbar allahu akbar dafa doon loo xam suñu borom daf nu ko sant gis ngeen ne bu nuy julli wala ngaa dugg ci julli gi sax li lay dugal ci julli gi mooy kàbbar allahu akbar boo sëggee jógee ci ponk boo jógee boo demee ci beneen ponk bi ngay demaat li tax ñu xam ne jóge nga ci ponk boobu mooy allahu akbar takbir bi ngay def euh, boo jógee ci sujjóot pour jógaat li lay wax ne la jóge nga ci sujjóot bi sujjóot bi jeex na mooy takbir ngay def loolu yaakaar naa ne liñ koy def ci julli lu baree baree bare la sunu borom dinu ko def loo ci weeru koor bu nu tëbaskee ba noppi bu nu koritee ba noppi sunu borom dinu wax ñuy tudd màggam gi di tudd sellam ki nga xam ne moo di takbiir loolu nag def tawxiit daf cee nekk tawxiit ju mag dafa nekk ci tudd gi ñuy tudd yàlla ak di tudd màggaayam gi ak di ko kàbbar bu ñuy rendi dañuy tudd yàlla allahu akbar bu ñuy noddu ñu tudd yàlla di takbiir di tudd yàlla ci màggaayam gi nga xam ne am na ko kon doomu aadama ji war na feesal ci xolam takbiir di tudd yàlla lu bari di màggal yàlla di wax allahu akbar loolu bokk na ci li nga xam ne jullit bi dafay fees ci xolom bu feesee ci xolam nag mooy dara dafetul xajati moo tax jullit warut bàyyi xolam lu dul yàlla fees ca lu dul yàlla nekk ca moo tax bu ca dara nekkul rek sa xol bu ci yàlla nekkut leneen a cay nekk di la jax-jaxal fisi dóori naas fisi dóori naas minal jinnati wa naas jaxa googu ngay def li tax ma koy am mooy dara dafa nekkul ci sa xol mooy dara dafa nekkul ci sa dënn sa dënn ak boo gisee sunu borom wax foofu ci dënn dafa xam ne balaa dara nekk ci xol dafa nekk ci dënn ba noppi soog a nekk ci xol moo tax ñu bëgg nit ki di feesal boppam ci kàbbar yooyu mu xam ne daf koy kabar bu nuy julli it xam ngeen ne ay kabar la ñuy def bu ñuy julli néew ay kàbbar la ñuy def takbiir nit ki bu fekkee jeexal na xolam ci loolu ak feesal na xolam ci takbiraat yooyu nga xam ne daf koy def bu boobaa seytaane du am ci xelam xolam du ci am place waaye saytaane dafa mel ni ndab la loo xamante ni dafa mel ni day wër xol yi nga xam ne yàlla daf caa bëgg a nekk mu dàq fexe ba jóge ci yàlla doo sikkar doo tudd yàlla doo takbiir loola bu ko defee seytaane mooy nekk ci sa xol di la ko jax di la jax jaxal ci sa xol moo tax sunu boroom bëgg nit ki fu mu toll muy tudd yàlla di tudd màggam ngi di kàbbar ndax loolu dafa xajut ci xol sax loolu xajut ci xol xol bu mu nekk lu mu ca fekk daf koy dàq lu mu ca fekk day dàq loolu ni yonante bi salaa salaam wax ne boo fekkee yow dangay génn sa kër booy génn sa kër ngir seytaane yi musal la ak toppal bañ laa topp booy génn da nga wax bisimilah tawakkaltu xaw laa xawla wala xawata waaye yonante bi neen pour nga dellu siwaat sa kër ak nga dem ci jàmm mooy booy génn sa kër na nga wax bismillah tawakkaltu alallah laa xawla wala xawat nee na boo ko defee saytaane si dalay xool malaaka yi xool la saytaane si daal di jikki-jikki daal ne xaj ji taxaw di la xool mu ne ko ah seen saytaan ne ko ah yàqule nga tey de tey de kii yàqule nga nit koo xamante nii bi muy génn nee na yàlla musal na ko yàlla fegal na ko yàlla aar na ko ku yàlla aar ku yàlla musal ku yàlla fegal loo ko mënal nee na saytaan ne nag kuñ daal di dëpp wàcc wàcc la loolu nag li koy waral mooy nit kii di tudd yàlla gis nga ne nit ñi tàmm nañ loo xamante ni fi ñu toll bu ab kaas daanu woon wala dara rëcc wala nàngam au lieu ñuy tudd yàlla wala ñu takbir allahu akbar saxaaba yi loolu lañ daan def di kàbbar ci kaw takbir buñ déggaan musiba lu leen jaaxal wala loo xamante ni lu sedd seen la dañuy kàbbar allahu akbar kàbbar waaye nit ki bu déggee saaga wala mu tudd loo xamante ni du yàlla wala mu tudd loo xamante ni da xam ne kii tawxiid des naa nekk ci xolam liir bi sax su juddoo li ñuy njëkk def ci noppam mooy noddu ci mooy kàbbar gi ne allahu akbar xam ngeen ne kon loolu day wane ne moom kat mu ngi ñëw ci àdduna waaye li mu njëkk a dégg ci àdduna mooy turu yàlla la njëkk a dégg turu yàlla woow nag lim ci jàng ak tur wi diis ci xale bi ba nga xam ne xale bi tawxiid day daal di ñëw dugg ci boppam day daal di fees ci moom moo tax ñu bëgg ñi nga xam ne dañuy ay noppi ci hôpital yi wala jigéen ñi ñu jàngal leen nodd boobu seen doom juddoo ñu mën a nodd ci làpp nopp bi liqaam wala docteur bi médecin bi nga xam ne moom mooy rewlu yooyu wala moom moo cay nekk bu ko defee moom mu mën a tudd baat yooyu ndax xale bi sopp nan ak bëgg nan mu teel a tudd baat yooyu ndax baat yooyu dafay am lu muy jeexital ci moom mooy baati tawxiid la yuy sax ci xolom yoo xamante ni du bu màggee du mën a jóg ci kawam yonent bi nag sàlla salaam nee na nit ki su juddoo fitara la amee maanaam dara nekk gut ci moom bu leen neexee ñu def ko yahud bu leen neexee ñu def ko nasaraan nit ki sa doom nan lay déggee ngay tudd yàlla boo gisee loo tiit boo gisee loo ragal boo gisee loo ñeme nga ne allahu akbar sa doom faaw mu jàng ko ci te baat bi dafa yomb waaye lu diis la loo xamante nii dañuy wax ne xajut ci bopp nit sax nit sax waru ko woon a mën a wax dëgg dëgg dëgg dëgg te kiit ndax sunu borom bu waxee ne law ansalna asal qur'ana ala jabalin la raayto xaasiran mutasaddian min xasiyatillahi wa tilka lamsal nadribiha di wane ne alxuraan suñ ko wàccee woon ci doj mu toj kon buñ ko wàccee ci nit baat yooyu suñ ko sayee nit mu koy wax ak i malaakaam kon kaaraanga yàlla moo ci nekk su ko xale bu ndaw mënee wax kaaraanga yàlla moo ci nekk kon baat yooyu nan fexe ba saxal ko ci sunu bopp saxal ko ci sunuy njaboot tàmmal ko sunu làmmiñ moo gën bu nu gisee lu nu ragal wala lu nu ñeme wala dara lu nu bett ñu tàmbali saaga wala ñu wax baat yoo xamante ni du baati tawxiit te baat yooyu ngay wax yàlla saa boo ko waxee daf lay bindal aw yiw kon mbokk yi yaakaar naa ne jarut guddal waaye lu nu yàlla sala loo xam booy tàmbali julli julli gis nañ na mooy li gën a màgg ci li yàlla santaane julli mooy li ci gën te julli li tax nga li ciy wax li ngay tudd al li nga ciy kàbbar doo ko kàbbar ci dara booy taxaw li tax nga dugg ci julli gi kàbbar la boo sëggee jàpp say woom da ngay kàbbar booy siggi da ngay kàbbar booy demaat ci sujjóot looy jóge li tax yàlla wax la ko ci mu bari ci lool ci julli gi te leneen bareegul mooy xam ne itteel na yàlla lu itteel yàlla nan jaam bi daf ko war a def itteem te itte gi mu itte woo yàlla mooy tax ne ñun daf nu ko sant sant gi mu nu ko sant ñu wax ko nag kon jàpp naa ne ni nga xam ne faatiha xam ngeen ne di nga ko wax ci julli ay lu baree bari li ngay kàbbara ëpp fuuf li ngay wax faatiha kon mbokk yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye ñu saxal ci suñuy xol fas yéene tawxiit nekk ci kàbbar yooyu ñu baril ko ci sunu làmmeñ waaye baril ko ci sunuy jëf baril ko ci sunu xol ba sunu xol yàlla fees ci ba dara dootu ci fees ndax bu nu xamee ne yàlla moo gën a màgg lépp lu màggul rek du dugg ci sunu xol li màgg mooy yàlla yàlla moo war a jeexital ci sunu xol ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp seexu naa moo nekkoon ci caméraman bi soxna Awa moo nekkoon ci réalisation émission bi soxna Xadi Ñaŋ moo ko doon moonte ñu jox leen daje ci yeneen i jotaay yal yàlla defar seen mbir defar suñu mbir wasalaamaaleykum wa rahmatullah murtajan minnatun lana jariun